gouverneur bu Dakar daal dinay génne nag ab arrêt démbu le 28 mars 2023 ci biir arrêt ba nag daal la ci nekk mooy tere ci ab diggante lu ñeel njaayum carburant ci anam yi may bëgg a wax ngir nag assez région sécurité nag moo yor daal mu jël dogal bu ni mel fépp nag ci euh, région bu Dakar la ko daal di euh, tere tàmbalee ko tey ji àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars war a jeex nag aljuma fanweer fan ak benn ci weeru mars tere gi nag mi ngi concerné daal ñeel ñi nga xam ne daal dañoo bëgg a jënd ah, carburant ci ay ah, lu me ñeel wàllum ay butéel gi teg daal ñëw ay am na façon yoo xam daal boo ñëwee ngir jënd ci carburant daal lu dul nga yor oto boo xam ne dafa am réservoir wala nga yor moto ah, gouverneur génn na communiqué boo xam daal daal dina koy tere ñi nga xam ne nag daal dañoo am di yëngu ci lu ni mel ñoo xam ne daal dañuy yëngu ci seenum liggéey dafa laaj ñu am carburant gi teg ñoom nag li nga xam ne daal moo euh, moo leen moom la ñu des waa mooy dem nag daal di ñaani autori ci kilifa yi yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi ñu nekk ci région bu Dakar bu ko defee nag mën leen a permettre bu ñu demee xam ne ñooy jaay ñi mën leen daal di jaay li nga xam ne ñoo euh, li nga xam ne moo carburant lu dul noonu nag képp ko xam daal dinay jëlgati lu mel mooy jaaykat yi carburant yi moo essence wala gasoil daal koy euh, jëlkat yi na nga xam ne nag gouverneur daal mi ngi lay bàyyi loo xel ne am na ay pen yoo xam ne yu diis mën ay sanction yu riis yoo xam ne loi bi prévoir na ko te mën nañ la ko teg ci sa kaw moom gouverneur nag daal moo wax ne daal préfet yi di préfet bu département bu Dakar Guédiawaye bu Kër Massar bu Pikine ak bu Rufisque ak commissariat central bu Dakar ak itam chef de service régional de la sécurité publique ak itam commandant de la région de gendarmerie de Dakar ñoom la ñu ngir ñu fayee ci bàyyi xel ci lu ni mel daal nga xam ne daal moom Alhassane Sall tere na jaay lu xeetoog carburant li ko tàmbalee tey ji ci àllarba ji jëm àjjuma daal lu dul ci oto ñi nga xam ne dañu yor ay réservoir tere nañ leen ñu tere nañ ñu leen jaay yi xam ne moo di ah, ah, gasoil wala essence lu dul dañoo am autorisation bu bàyyi ko ci ah, kilifa yi. fi cité kër góor gi rawatina fa nga xam ne fa la Ousmane Sonko dëkk jamono ji dem fa jafe lool li ko waral nag moo di force de l'ordre yi dañu ko daal di barricadé maam daal dañu ko wërale ak li nga xam ne daal moo di ay barrage comme ne daal ne xaat jamono ji li est actuellement quatre heures wala boog moo wax cinq heures li nga xam ne daal moo di kër Ousmane Sonko commencé nañ koo daal di euh, euh, baare ngir dem fa daal jafe na lool lool lool waaye itam euh, di loo xam ne nag buñ sukkandikoo ci Sénégal sax daal nee ñu nag loolu daal lu ñu commencé nag daal miin la mu ci foofee ca këram saa yoo xam ne Ousmane Sonko daal war naa dem nag tribunal ngir wuy ji yoon daal li nga xam ne daal mooy yoon yi jëm ci këram da di barricade ñi gërëm nag ñooy force de l'ordre yi ci ndigalal seen kilifa xam ne nag ñoom waa Yewwi Askan Wi woote li ne moo di manifestation te daal nee ñu daañu ko amal donte nag préfet daf leen ko tere démb nag bokk na ci kàddu yi nga ne fës na ci déclaration président Ousmane Sonko.